jàngoro Covid fii ci Sénégal dañoo nemmeeku daal jamono ji mi ngi gën jëm kanam li nga xamante ni moo di ci mbirum kaa euh, yi ak tamit li nga xamante ni moom moo di ci mbirum lim bi bés bu yàlla sàkk ñu nemmeeku nit ñi nga xamante ñoo am jàngoro Covid 19 di gën a yokku heure moo tax nguuru ko Sénégal daal di jël ay euh, dogal tamit ngir di gën a xeex li nga xamante moom moo di jàngoro ji barki démb rek ki nga xamante moo di communiqué ministère de l'intérieur daal di rootal daal mi ngi ci tere li nga xamante moo di bépp rassemblement di si tere lépp li nga xamante war mën a nasaxal xeex bu ñuy xeex wàllu Covid 19 te tamit gën a ñaaxaat nit ñi ñu sol seen ay masque daal ngir éviter li nga xamante moo di jàngoro ji law gu muy law askanu ko Sénégal ñenn ñi di ko rafetlu jàpp ñu daal li ni a tax yi askan bi ñu gën a amal prise de conscience euh, par rapport li nga xam ne moo di degré euh, feebar bi. comme ne nag dañuy comprendre xam ne bon Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk comprendre dañuy xool jour loo xamante ne moo ñuy jëmale kanam ñu jëm ci dox corona bi moo indi impact bi am ci dëkk bi yëpp n'est-ce pas donc ñun ñëpp war nañ def prise de conscience comme quoi que ne lii lépp ñuy tere njëriñu askan wi la quoi c'est juste que pour que deuxième vague bi bañ a améliorer wu ba xam nga indiwaat yeneen yeneen yeneen impact ci sunu koom-koomu réew indiwaat yeneen impact ci sunuy démarche ku ne corona xam na ne ne depuis lors bien avant les ouvertures affaire yi xawoon na wàññeeku mais fi mu toll nii fan yi semaine bi ñu dugg ak bi ci topp yëpp gis nañ ne affaire yi ñu ngi commencé waat jóg dañu war a seet nag nan lañ ko war a mën a xeexee ba génn si ñun ñëpp proprement ñu mën a continuer suñuy activité naam metti na mais tamit doomu aadama bi ndogal bu wàccee sa kaw da nga koy nangu du dëgg et puis góor góorgóorlu jéem a seet jël lee mesures barrières yi nga xamante ne nii dina la mën a jàppale ba affaire yi dellu ginnaaw parce que affaire bi buñ ko seetaanee ba mu ëpp ñu doole day mujj metti sul suñu kaw ñu amoon dërëm buñ ko seetaanee dërëm boobu dañ koy ñàkk donc dërëm bi ñu am dañ koy téye ñafek moom ba mën a am ñaari dërëm du dëgg. bu fekkee dañoo yàqal lu bëri mbas bi moom dañoo yóbbu ar que daaw moom lu ko jaay moom si la mars bi gënoon a dox quoi par rapport ak ren instant tey la onze xaw ma douze gis gisuguñu benn client par rapport ak daaw quoi. ndax heure yi maa doon am xaalis xam nga xaalis bëri waaye ren moom gis ma dara mbas bi moom mbas bi moom baaxul moom garaawul na trop rawatina nag ministre de l'intérieur dégg naa ma nag danoo annulé lépp xumbaay affaire yooyu dana gën a kii baaxul moom dañuy gën a day gën a métti suñu lekk waaw am na am na yu ma jëndoon am na am na yu ma jëndoon am naa ay sapin jënd ay guirlande xam nga di waaye jënd pétale waaye bu ma déggee ñu wax loolu laa bàyyi mu seddi quoi waaye yu bëri jënd naa mi ngi sama biir carton ma def instant génne gu quoi ah, xanaa métti lool dina métti lool ndax euh, jaaykat moom amul lu dul fendande fendande la jaaykat yi bu bari di profité pour jaay am dara ndax gaa yu bari sax amoon jotoon na noo li ñu dese woon pour ñu ay bagages yu ñu jotoon na wut pour jaay ci profité ci fendande bi pour jaay ji mais xam nga rek léegi lii am na ah c'est dommage de dina métti lool ci jaaykat yi de waaw dina métti moom wax dëgg moom mais bu nu sañoon daal moom xam naa ñu dana war na bàyyi mu jéem muñal jaaykat yi rek ba fendande bi jee ñu ngi seet ñu nu ñuy def ñu doon def daal mais daal dina métti daal ci jaaykat yi moom commerçant yi moom dina métti ñoom lool waaw. amuñu lu dul jënd ak jaay léegi bu bu defee noonu kon ñun duñ décembre bi duñ ci am dara kon ñun dañu mel ni rek dañoo jël rek mel ni ñun ñuy jaay ay pëpëlin ak wëñ ak tisi rek duñu am dara ndax ndax bu tëjee lépp doo am loo jaay doo lépp fi bagage yi ngay jënd di ko jaayaat ay pertement la da ngay jëlaat teg ko foofu. kon kon mu defee noonu kon ñun lu ñu duñu liggéey duñu am xaalis ak yooyu noonu moom nag ñun ngay ñaan kay mooy mu bàyyi ñu ba ba fête bi jàll bu fête bi jàllee moom affaire lu mu do lu mu dogal rek mën nañ ci ànd waaye bu bàyyee moom ba gars yi essence yi si toll si si digg fête bi bu bëggoon di wax ay yooyu noonu ay remboursement yooyu noonu yëpp mënoon nekk loolu loolu day metti fi ñu toll ni jamono ji moom day metti na xaalis amul dëkk bi dara doxul yeneen yu sew yi tamit dara doxul président bi kenn xamul la bëgg léegi ñun tamit dañuy sonn boo def bu defee noonu rek du baax si te instant yi dëkk bi dafa mel. am na ay yu rafet tissu bii sax si la bokk yii nii sax nekk si mbuus bi léegi laa ko doon jëli fee yëpp ci ay ay messages yoo xam ne dafa ñëw am na bagage yoo xam ne suba la war a ñëw sooba yàlla loolu yëpp léegi boo ko jëndee pertement la loolu yëpp ay valeur millions yu dul jeex léegi boo ko jëndee pertement la ministre bi bëgg a def benn jékki rek bëgg a def lara loolu day metti moom bu xoolee moom ba muy ba muy ba mu ba mu fay nekk dafa metti kon dafa war a comprendre nit ñi jamono ji ñu nekk jamono ji dëkk bi dafa metti mënoo xëy dara am lépp moom dafa dafa liggéey ba am yàlla may ko mu doon ministre kon na comprendre ni ñi tamit mu may leen ba ni ñi fête bi jàll def lu ko neex waaye instant yi moom dëkk bi moom fu mu toll nii moom bu defee loolu moom confirmation moom loolu moom day métti jamono mën a wax rek mooy li nga xamante moo di jàngoro Covid 19 gën di wéy euh, lëmbee moo tax nguurug Sénégal fi mu ne taxaw na temm ngir xeex jàngoro ji ngir def ay dogal tamit ngir askan bi gën koo mën a euh, sàmm bu ko defee rek li nga xamante moo di euh, mbas mi daal mën a jeex une fois pour toutes fi nga xamante ni moom moo di réewul Sénégal donte sax ay jafe dina ci am waaye li ñu ci a wax rek mooy daal ñëpp boole appliqué li nga xamante moo dogal li nguur gi dogal li nga moo di mbas mi daal dina jeex une fois pour toutes fi nga xamante ni moo di fi ci réewu Sénégal Sénégal.